gouvernement bi moo ñu war a dimbalee ci friperie boobu ni mu fiy duggee ëpp na ay morceau cent ay morso deux cent ñu tegal la ko ci marché bi kenn du circuler kon war nañ ñoo amag aménager marché boo xamante ni ñun dañuy mën di def prêt-à-porter bu accessible boo xamante nit ñi dinañ ci mën a jot ba pare ñu mën koo dugal ci marché bi nit ñi di ko jaay ci boutique yi lu waaye di liggéey te amoo marché boo ko jaayee du dem ubbil ñu aussi marché mondial bi ñu fexe di conceptionner affaire yu baax di ko eksterior, extérieur parce que loolu mom moy lu ñuy soxale bu ñu joxé 100 jox ñu ñaar 200 euh, amalu ñu ndariñ mais nañ ñu ubil ci lu ñu nekk di ci yëngatu ñu jappalé ñu ba nga xamné day doon entreprise yo xamné dañuy mëna liggéey di jaay ci biir dëkk bi di liggéey di yóbbu extérieur aussi même uniforme yi nekk ci dëkk bi yoy yëpp war na doomi mbuur yi war nañu mëna am capacité am nañ capacité ñaw ko mais war nañu accès ci marché yooyu. muy possibilité mais amalgame bi ci am moom mooy charte yi ñuy teg ci marché yi day laaj nga am somme bu takku day laaj comme ni ma waxee sànq matériel bu bari entreprise lay laaj comme ñun kenn ci ñun mënta am entreprise boobu mais comme ni ma waxee sànq mën nañoo def consortium buñ boolee suñuy doole entreprise bu mag lay doon.